sëriñ bi daal sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima salaatan wa salaam wa barakatan taquudu biha li shaykh alxadim alxaail yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu qadimu man summaatuhu muhammadu bismillahi wa huwa arrahmanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu mbokk yi noo ngi leen di nuyu bi taqiyatin xasana wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana di am yéene dikkat ak yéen ci lenn ci jataayi sëriñ bi sëriñ Tuuba xaada lahu laahu maxtaara mas naa wax sëriñ Moodu Xari Mbàkke radiyallahu taala anhu Moodu Xari mu ne ko Mbàkke sëriñ bi ne ko fii mu ne mënuma wax ak yéen dara bu ma bëggee wax ak yéen damay ñëw ba fii yéen ma yor melo wu ma mën a waxee yéen ana loolu lu ko waral yéen aadama mu mujj mi mooy seen maam te man aadama mu njëkk ma ba ñu koy tën maanaam di ko bind ci ban maa ko teewe lii bi ko sëriñ tuuba xaada lahu laahu maxtaara di wax mu ngi yor baraada di tàngal ataaya di ca def suukar su bari daldi xool sëriñ Moodu Xari Mbàkke radiyallahu taala anhu ko xam naa yaa ngi wax ci sam xel rekk naa ñoo ko bëgg suukar waaye du ak bëgg suukar yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi dama saf ba dara safatul fi man di xiim baraada ba ba mu yàgg mu duy ca ab kaas yëkkati ko di ko xool ne ko muudu xëri mu ne ko mbakke sëriñ bi ne ko kaas bi mën naa cee def loo xam ne boo ko mënoon def ko mu ne ko lu mu doon mbakke sëriñ tuuba xaada laaxu maxtaara lahu ne ko mën naa cee def loo xam ne bu ma ko ci defoon naan ko giiru banu israil bis bu nekk junni dee ci ñoom ci boroom daraja ya sëriñ Modou Khary radiyallahu taala anhu ne ko def ko ci naan ko mbaa nga jox ma ko ma naan ko sëriñ Tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu ko déedéet Modou Khary sëriñ bi ne ko Moodu Xari mu ne ko Mbàkke mu ne ko ku sëf sa jafka xëy na gileem walla lu ñuy sëf te muy dund lay wax dem ak moom ba ca àll ba mere ko tax nga rey ko da nga yennu sëf mbaa nga yennu àll Moodu Xari mu ne ko mbakke sëriñ bi ne ko dikk leen ma wax leen te àjjal leen ak li dox seen diggante ak seen boroom na ngeen di julli julley juróom te bañ koo yaakaar nangeen koy def ngir ndigal waaye yéen seeni julli du leen jariñ dara ca bisub yowmal ba daa am ñu fiy ñëw sama ginnaaw te bëgg ma lool su boobaa julli yi lay fopp def leen ab yéegukaay te mooy lu mel ni ab buum ci am ndox walla bàkk sama digganteeg ñoom ñu jaare ci ba fi man ma dimbali leen Moodu Xari mu ne ko Mbàkke sëriñ Tuuba xaadalaxo laaxu maxtaaralaxo ne ko benn dëkk benn ja maanaam marché menn njaay maanaam marchandise benn jënd jëndkat ku xàcc ci moom doo jaral mukk Moodu Xari mu ne ko mbakke sëriñ tuuba xaada laxo laaxuma taara laxo ne ko ñii bu ngeen fekkee ñuy julli bu leen ca dugg waaye yéen bu ngeen di julli bu ñu ci duggee bu leen leen wax dara bu ñu leen defal dara bu ñu leen jiite mukk bu ñu leen jullil ab niiw bu ñu leen rendil am tabaski bu ñu leen tuddal seeni doom ngir ñooñee yàlla saa boroom subhaanahu wa taala ak yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa nee nañ ma seeni jëf amuñu ci soxla wér na ginnaaw bi nu xamee ne sëriñ tuuba xaada lahu moo nekkal yàlla sunu borom subhanahu wa taala ci kaw suuf si wuutu itam yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bu nu fàtte ne am na ay jagle yu bari yoo xam ne kenn mësu ko am te kenn duutu ko am moo tax sëriñ tuuba qaada lahu laahu maxtaara lahu di wax ne ilaya qaada laahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li ni jagle yooye nag nekkul ci alxuraan nekkul itam ci xadiis yi ni ñuy gisee jagle yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci téere yi ndax boo yéree xalil radiyallahu taala am na bunt boo xam ne dacay leeral yi yonent bi sañ sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa te kenn sañu ko ndaka noonu boo xoolee suratul ahsaab danga gis yu bari ci li muy wax ما كان لكم أن أطوسوا رسول الله ولا أن تنحكوا أصواجه من بعده أبدا إن سالكم كان عند الله عظيما Sëriñ Tuuba qaadalahu allahu maxtaaralahu nag bokk na ci ay jagleem ku ko bañ du tàbbi ajjana du defal yàlla lu mu gërëm ak yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ko topp loolu moo tax sëriñ tuuba xaadalahu llahumma xtaaralahu di wax ni ajjuru lesi naasa ani walam yatub shaqawatan taduumu fi umul kutub qulubu man lam yuhibbuni ala wajalin ولا يلاحون ما راموا ولا البابا قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب مصلح ndegem jëf yi ñuy jëf yépp ngërëmul yàlla subhanahu wa taala lanu ciy sàkku war na ci sëriñ bi mu nuy leeral bu baax fi ngërëmul yàlla nekk subhanahu wa taala ak fi mu nekkul ba tey loole sëriñ tuuba xaada lafa allahumma xtaara lafa di wax benn dëkk benn ja menn njaay damay nuru ne boppam lay misaal ak diggam ak boroomam ni mu ko maye lu baax lépp ndax lu baax weesuwul alxuraan ak xadiis ak lislaam te yooyu yépp sëriñ tuuba xaada lahu maxtaara lahu nee na yàlla may na ko ko te dootu leen nangu daanaka foo xool ci mbindam yi gis mu koy leeral lu bari lool moo tax sëriñ tuuba xaada lahu maxtaara lahu di wax ne nazaa lil islaamu ànda xurbati لدى الجزائر المنير التربتي نزع لي نور اللزان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب ndegem loolu am na moo tax ku àndul ak moom du am dara war nañuy xam ne sunu borom subhanahu wa taala mooy def di dindi te waxtu nekk mi ngi def di dindi kullu yawmin huwa fi zanin ku dul xam la muy def ak la muy dindi dalaa war ngay ànd ak ka koy xam moo tax alquran di wax ne wa ma kaana allahu li yutliakum ala xaybin ولكن الله يجتنبي من رسوله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Sëriñ Tuuba xaadalahu allahumma axtaaralahu nag waxul ne ab yonante la waaye leeral na ne moo leen kawe fuuf ci ay waxam ak ci mbindam lu muy waxit saa borom subhanahu wa nee na ma lay wax gis nañu loolu ci mujjug nettali bi wallaahu aalam sëriñ ma sàmba radiyallahu taala mas naa ñëw ci sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu bay dellu sëriñ bi laaj gone gi topp ci ginnaawam kan la mu ne ko doomi maxtaar anta la radiyallahu taala anhuma sëriñ bi ne ko ndax mi ngi jàng mu nakk nakal sëriñ bi ne nañ ma wool muudu xawa njaay mu ñëw sëriñ tuuba xaadalewoo laaxu maxtaralahu ko jàngalal ma alquran doomi maxtar anta ji wér na lii doy na sëkk ab soññe ci nun waajur yi ci jàngal alquran gone yi daanaka fii nu toll jàngi alquran ci ku amub yar doy na sëkk ku ko def boo mbokkalee kenn duutu la mën a yàq li waral jànge ci ku amub yar baax dalay wàll jikkoom wallaahu aalam sëriñ Moodu Xari Buso radiyallahu taala anhu mas na ànd ak baayam di siyaare ci sëriñ Tuuba xaadalahu allahumma xtaaralahu ba ñuy jóg di dellu mu ne yàlla nañu yàlla boole ci sa ñoñ sëriñ tuuba laaxu laahu maxtaralaho ne ku wax loolu ñu ne ko muudu xari sëriñ bi ne ko ñaan nga lu mat ndax mbooloo mi ñi ci ëpp dañoo mel ni ñu ànd ak man te fekk ànd ñoog man bi ma jógee di wuti yàlla saa borom subhaanahu wa adduna dama topp ma gàntal ko ba mu taa te mooy mu tële ci man mu dellu mel ni ku meroog man am ci mbooloo mi ñu gis àdduna joojee daw topp ma mel ni man lañuy topp mu mel ni kuy dàq kuy dàq dara ñooñee sëriñ tuuba xaadalaho laahumma taaralaho nee na fu àdduna yem ak man laay yem ñoom siiw na moo tax sëriñ tuuba xaadalaho laahumma taaralaho di wax ne fallaahu yansuru nii wal xalqu tatbaxu nii fil wal bahri saa naf'in bila dararin waraaniyal abraaru fil uxraaya وانقاد bila بلا انتهى الحرايا منكم من يريد الدنيا ومنكم man yuridu al ku nekk am na lu mu bëgg ci ab xolom di ko wut loolee nag yàlla sunu borom subhanahu wa taala xam na ko bu wér moo xam lu baax la moo xam lu bon la moo xam àdduna la moo xam alaxira waaye sëriñ tuuba xaadalahu laaxu maxtaaralahu nee na képp ku tàmbulee jëflanteeg sunu borom subhaanahu wa taala na nga xam ne dara ump ko te bàyyiwul dara wallaahu aalam sëriñ tuuba xaadalahu laaxu maxtaaralahu daa woon sëriñ xaasim ak sëriñ abdullahi doomam radiyallahu taala anhuma bu daan jox ay yére sax da leen koy boole ñu séddee ko wér na wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu nee na ndaxam moos ñaar dama jàppoon ne mucc ci dana am waaye xam naa ne du mën a am gunge maanaam ànd ak yéefari jahannama ak rekk kuk ngëm wér na yaa ayuha allazina aamanu atiu llaha wa atiu rasul wala tubdilu acmaalakum sunu boroom subhaanahu wa taala buy wax saxaaba yi radiyallahu taala anhum bu leen yàq seeni jëf dana ñu xamal ne jëf ju baax dana mën a yàqu ci ay wax walla ay jëf an bit amaalukum wa antum la tas'urun ba tey yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na nit dana def lu baax di ko tudd muy wàññeeku mu koy tudd muy wàññeeku ba bu ëllëgee loolee du ko fekk muy dara sëriñ Tuuba xaadalahu laaxu maxtaaralahu nee na li ëpp ci jëf ju baax ju ñu xam njariñam du bari bu ëllëgee is julla ma baana lahum minhu fala yaksur nafahu xaddan is yuj tala moo tax jamono ji ñu toll ku ko mën a niiwal say wax baax na lool ndax lu mel ni jëw bari na lool te nee nañu ku koy faral di def du faatuwale ak ngëm yàlla nañu yàlla dolle dimbali te may ñu mujj gu rafet ci barkeb sëriñ tuuba xaada lahu allahumma axtaara lahu wallaahu kon mbokk yi ñoo ngi leen di jox dig daje ëllëg insha allah di ñaanal xalifatul am li tarixatil muridin cheikh mohammadul muntaqa sunu borom subhanahu wa taala guddal aw fanam yokk ko kattan ba mu mott li mbooleem ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal sëriñ Tuuba qaada lahu laahu maxtaara